kon donc boo ko jëlee tête par tête da ngay mën a wax ne euh, maanaam am nañ gouvernement boo xamante ni li ñuy wax système bu daanu système bi daanu na li ñuy wax euh, maanaam euh, objectif sénégalais yi daal ñoo ci des. ñoo ci des waaw man jàpp naa ne Sonko. mais ndax yaakaar nga ne ci juróomi at. Ah, li ñu ci liñ ci naal comme ay ay proposition ndax naka la ñu mën a def ba lépp mën a jaar yoon ba ñu mën ko doxalee mooy lu ci mel ni reddition des comptes bi. lu ci mel ni itam lu jur coow mooy franc CFA bi franc CFA bi jur na coow waaye tamit li nga xamante ne ni moom mooy yenn ci ay institution yu ñu jortu ne yu ñu jàpp ne ci projet PASTEF bi dañuy wax ne dinañ si nañ koo dissoudre mooy ñu ci mel ni HCCT mhm. euh, lu ci mel ni tamit conseil économique social et environnemental donc en ci juróomi at naka la ñu mën a def ba mën a réussir loolu lépp waaw foofu Euh, il faut sénégalais yi xam dara mooy gouvernement bi seen gouvernement la seen deret moo ko taxawal ak seen i kaddu ak seen seen coono. moo ko taxawal hmm. surtout ça. Ousmane Sonko jiitu ci. Hmm. deretam tuuru na ci. def na ci lépp luñ ci def. ñàkk ci hmm. liggéeyam ñàkk ci lépp kon donc gouvernement bi dafa am lu spécial lu ko wutale gouvernement ya weesu woon. bu ñu am aada yi boo ñu falee ab état après di jéem a wër wëraanu ñu def ba ŋàññi ko mhm. gis nga gis nga gis nga gis nga suñu suñu suñu lii ñu am muy muy muy muy révolution bii ñu def mhm. suñu fexee ba mu échec mhm. cinquante ans yii dootuñu ko dabuwaat parce que nit dootu waxati nit lu mu gëm il faut ñu xam ne ñi ko woote mate nañ ko ñi leen ci fekk si tamit def nañ li war a def parce que benn mooy mooy mooy mooy calendrier bi Macky Sall amoon ak senegal du woon lii mhm. du woon lii mhm. dafa bëggoon a toog ba doyal jox ko ko neex mu toog ba doyal mhm. système bii ma leen wax muy jàngut am ah, du ñuy patriote jubuñu fas yéene yor réew mi jiite ko ñooñu ñoo fi naroon a nekk di continuer dem lii am nii Sonko bi muy def parti da leen a bett dégg bi mu nekk candidat Diomaye bi mu nekk candidat da leen a bett bi mu leen a gagné da leen a bett lépp ci mbette la leen dikke moo tax gis naa ci ñoo xam ne ba fii may wax ak yow duñu seetaan RTS. Mhm. parce que nee nañ mënuñu mënuñu comprendre ne maanaam nguur gi gën na ci seeni lox mhm. soo xoolee tamit c'est la première fois ay élection am amul contestation amul benn leader politique la opposition bu ñemee def conférence de presse actuellement. Mhm. amul amul ku ci ñemee def émission de télé. parce que amuñu lu ñu wax. li leen dal yetu bopp la xamuñu fu yëf yi jóge xamuñu fu jëm. man nag li ma leen di woo mooy ku ci sawar nga ñëw ñi wutal lay tool nga bay parce que di duñ dikkaat loolu moom man maa la ko wax hmm. ñun duñ dëje duñ saagawaate duñ talaate duñ def kenn dara terrain baa ngi noonu ñoom ma buuba jaañ mii ak ñoom muntagaa jaawo mii ku amul xam-xam du wax ak ñoom hmm. voilà il faut ngeen jàngiwaat wala ngeen nangoo bay bàyyi politique bay wala ngeen dem université jàngi hmm. wuti diplôme doog a ñëw doog a wax ak gaañ waaye toog fii rek di tappaleeka coow nii ak di digaate kooku jeex na mhm. jeex na takk man maa la ko wax la Cheikh Yérim ne woon bu jeexee jeex na mhm. nguuru Macky Sall jeex na mais nguuru opposition Sénégal ak homme politique yi jeex na seen système daanu na kooku c'est c'est fini mhm. loolu laa lay wax léegi nag ay gis nga xëyum ndaw ñi wala autosuffisance ci wàllu dund ak yu mel noonu pour nga mën ci liggéey bañ am ci résultat buñ teg loxo 2017 ba tey ñu ngi koy dénk 2017 ñi la ko doon wax sax naruñu ko xam nga ñoom lu ñu doon def mooy yàkkamti nag génne benn benn financement ne dañuy def benn projet pour mañ cee am ay pour pourcentage lekk ko. lekkaay xaalis kese. mais liggéey taxu leen woon a jóg. xam nga ne yow nit du yor salaire dix million wala cinq lu ko lu ëpp lu ëpp salaire ministre. yor ay ay portefeuille yoo xam ne moo ëpp doole ministre nga nangu koo bàyyi ñëw maanaam soobu ci politique. Hmm. ku mel ne tey maire Sandiara bii. man jàppoon naa ne bu ñu ko nee bàyyil sa maire yi sax du ko nangu waaw moom borom xam-xam voilà mu nangoo bàyyi maireem bàyyi lépp ay ñoom ma Mabouba Diagne ay ñoom Mountaga Diawo ay ñoom euh, Moustapha Guirassy mhm. gaa ñi daal Moussa Balla Fofana voilà Moussa nag ba ci fàtte naa bit budget budget rek tey par exemple dañoo jël Mamadou Moustapha Ba mhm. euh, dindi ko teg euh, Cheikh Diba léegi nag foofu nag il faut ñu xam ne l'homme qu'il faut à la place qu'il faut la Ousmane ko def. Mhm. Mamadou Moustapha Ba dafa tabe rek nit ñi di ko tagg mais xam-xamam ci budget des na. Mhm. parce que génnewul sax ENAM. ENEA bii la génne mooy école bii nekk ci Mermoz wetu école kii la génne. Mhm. Cheikh Diba ENAM la génne. ba pare en même temps bi muy def économie dafa inscrire ENEA comme bi Moustapha Ba génne am même diplôme boobu ba pare am diplôme ENAM. d'accord ba pare dem France. d'accord jàngi bi mu ñëwee. Moustapha Ba bi mu nekkee ministre de kii di ba moo nekkoon conseil technique am dafa jóge impôt et domaine dem dem dem dem dem ah, dem dem euh, budget nekk fa conseil technique gu Amadou Moustapha Ba. Amadou Moustapha bi mu demee ba fi mu nekk nii moo nekkoon directeur de programmation du budget. d'accord mooy ki nga xam ne mooy toog ni lii laay séddale fii laay def fii laay def fii laay def loolu la mooy dafa nekkoon taalibe boo xam sëriñ boo xam ne moo doon topp taalibeem mhm. normalement bu dee ci côté këyit ak xam-xam Moustapha warul jiitu Cheikh Diba loolooy dëgg. léegi nag bi bi ñu ñëwee Cheikh Diba xëy na inspecteur impôt mais jàpp naa ne bu doon parti Pastef sonnal Pastef nangam nangam débat yeeg yéeg ak wàcc yi jàpp naa ne Cheikh Diba du nekk ministre. mais amul ku ko gën a xam budget Sénégal parce que mi ngi woon ci biir yàgg na fa ba pare que quinze ans def na ko ci biir ci biir ministère boobu ba pare moo raw ay ministre am. ministre yi ko doon diriger yëpp moom moo leen raw donc kon c'est normal lu cohérent la Ousmane Sonko ñëw dindi ki nga xam ne moom dafa nekkoon parce que poste politique wala xëy na ki la ëpp xam-xam daal waru warut a nekk sa ginnaaw nga nekk ci kanamam mm-hmm. mu jël bu dee ku mel ne poste bu mel ne El Malick Ndiaye waaw ñu bari dañoo ne falee El Malick da nga naan poste politique du poste politique El hmm. que foofu tamit jur na ah, coow ah. ah jurul coow El Malick El Malick dafa am mérite. Hmm. waaw. ban mérite. El Malick benn mérite bi mu njëkk am mooy bu paasee Ousmane Sonko mooy xaru kanam bi ñu gën a xam ci Pastef. waaw ah, parce que mooy doon jokkalante. mooy ki xaru kanam gën a xam ci Pastef. El Malick mosoo koo gis ñu ne ma ngay yéeg abion ñu ne tey boppam lay doxali dara pourtant am na visa amerique am visa fépp mosoo koo gis mu dem fenn fu dul projet Pastef mosoo koo gis mu toog ci tele wax une seconde ci boppam. dégg nga mosoo koo gis sax muy tukki maanaam ci dëkk bii rek ñu ne ma ngay dem Tiwaawoon parce que ay soxlaam lay dox foo ko seen rek ci affaire Pastef lu nekk mhm. loolu première la deuxièmement mooy dama am benn témoignage bu ma lay defal boo xam ne sénégalais yu bari xam naa ne mën nañ ko d'accord ak man mooy damay wax ne li may wax nii damay reerandoog nit mu ne El Hadj Malick Ndiaye lu tax ñu fal ko waaw ma ne ko dafa jànk mu ne non mais niveau am xaw ma lan comme ça charisme bi ma ne ko gis nga nag noonu laa koy waxee waat quoi ni ma ko waxee woon parce que lu ma gëm la boo jëloon téeméeri nit ñu ne la tànnal ma ci fukk ñoo xam ne ñoo gën a nitee nga tànn fukk ñu ne la tànnaatal ci fukk ñi juróom ñi gën a nitee nga tànnaat juróom ne la juróom tànnaatal ma ñett ñi ci gën a nite nga tànnaat ñett ñu ne la ñett ñi tànnal ma ñaar ñi gën a nite nga tànnaat ñaar ñu ne la tànnal ma ñaar ñii ki kenn ki ci gën a nite kenn kookee mm-hmm. mooy El Hadj Malick Ndiaye Mm-hmm. waaw gisuma ku ko gën a doon nit ci réew mi nit njaay la loolu ñu naan nit njaay mooy bi El am na xam-xam am na fulla te sama baay da daa wax ne góor ñaar rek la war a am wala kilifa ñaar rek ñu ne ko lan mu ne xam-xam ak fulla waaye mu ne bu demee ba ñaar ñooñu ñu ne ko bàyyi bu ñaar yooyu mënta benn bu ci mënee ñàkk ban lay doon mu ne na xam-xam ñàkk waaye góor day nit day am fulla El am na fulla am na xam-xam mosoo mosoo gis ci Sénégal nit kuy wax li toll ne li El Hadj Malick di wax te mosoo dégg mu ne sama jabar ba sama doom baa mu ne baal leen ma damaa juum fii. mas nga koo dégg def erreur lu ñu naan erreur yàlla na ko sama cotu làmmiñ mucc ba ci lii ñuy wax jomaay mooy sonko sonk mooy jamaay sax El Malick ko njëkk a wax. Hmm. tooñ naa ko ci ne ko bu dee sa wax nii la barkeele nag ma ñaanal. mook Papa Ngagne Ndiaye seen émission ba moo njëkk a wax ne jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay xoolal loolu ni mu daje wax boobu rek ni mu parce que mën nga wax ne looloo fal jomaay mhm. donc kon El Malick borom xam-xam la borom xam-xam la fan lay liggéeyee léegi dama lay wax benn affaire mhm. yoral un million nga wër Sénégal nga ne wax ma fu El Malick di liggéeyee ma jox la ko mhm. doo ko xam fan lay liggéeyee ah du ma la ko wax moom xam naa man xam naa ko mais man gis gisuma mu wax ko dama ko wax. waaw ma fan lay mais dama lay wax ne la poste bi mu yoroon moo gën a diis ministre moo gën a riis ministre. waaw ban poste la. du ma la ko wax moom na ko waxal boppam. waaw wax ko ah, sama yoon man ma la koy wax dama la koy wax rek noonu. Ah, du dara di liggéey rek la bu bu dagan. Alaaji maari boo xamee nit kuy lekk lu lew boo ko xoolee xam ne ki lu lew lay dundee. d'accord ci lu lew kon du sàcc du fen du postu mm, jaay dorog du dara postu liggéey la boo xam ne moo gën a riis ministre gën koo diis waaw léegi li foofu li ma fi bëgg a mooy leen nañ avancé xaaral mooy nit ku mel noonu yor poste bu tol noonu d'accord di toog ak nit ñi di waxta soo soccee wax tey mu kenn mënu laa wax lu muy liggéeyee ma wax la ne El Hadj Malick la gën a dégg ci olof waaw doo wax lu muy liggéeyee ma ne la est que xam nga ne El Malick anglais la gën a dégg ci olof xam naa moom sax dana ne loolu nu ma ko xamee loolu moom dëgg yàlla leer mu est-ce que mas ngaa gis mu wax ba juum ba tarxiis wax benn moo anglais musuma dégg loolu tax ma ne la El Malick booy wut nit pire nit njaay jàppal El Malick ba pare jànge Bordeaux léegi management lii ñu ko dénk nii daf ci jàng ba diplômé ci du du du njuxur njaay yi de punkal la sa sa sa wax ji yëpp est-ce que mooy wax naan toog muy dox moom mooy jeex na fi non man li may wax nii kay li may wax nii kay moom li may wax nii kay lu leer da ngaa wax ne niveau bi dafa kawe léegi daal kan ci niveau bi nee nga léegi dafa kawe Ndiaye dama laa wax man man man moom am na loo xam ne la ma ko jomb ci àdduna d'accord mooy lan mooy ñaar mooy fen gis nga fii ne El Malick bu ma seetaanoon may wax ci télé bi di ko waxal lu mu neex neex bu xamee ne maa ngi fen dana waxee xeeb loolu de waaw mhm. fii ne yow bu ñu àndoon ma naan ba nga ma mayee un million yi nangam yow di nga reede comprendre nga di nga xam ne man fenkat laa bu ñëpp xamee ne bu ma ñëpp gëmee yow di nga xam ne man fenkat laa jomm naa toog ci télé man di waxal ak sama moroomam nawle moo la joxut nga añ joxula nga reer maam ngay wax sénégalais yëpp bu ñu la gëmee moom moo xam ne sëñ baara mii di day fen subaa sax ku jógo jëm sëti caw mu ne la teyal ci waxam na hmm. waaw te sëñ bay jaxate de sëñ sëñ sëñ sëñ Malick Basine sëñ koo laajoon lu yàq kilifa d'accord mu ne loo am jagoo ko loo mer xul ko loo xam wax ko hmm. waaw te ñett yëpp jàpp naa ne El Hadj Malick mooy bu manee nee la ñi gën a jekku lango angale ci Sénégal ci la bokk. te mosu mënoo koo xam ci moom. ñi gën a rëy ay poste poste poste responsabilité yu mu yoroon ci privé di ko liggéey ci la bokk te mënoo koo xam ci moom. mënoo xam soxlas boppam bu feebaree doo ko xam bu ñàkkee doo ko xam bu tiitee doo ko xam bu jaaxlee doo ko xam Pastef rek il est nag vraiment postam bii mu yor. mérite yéene naa ko ko te jagoo na ko te yàlla na ko ci yàlla defal ndam. amiin. ay ñoom Biram Souleye Diop jàpp naa ne ah. euh, sant joob la ñuy jooy ci moom sant Diop hmm. waaye xam-xam moom waaw jox nañ ko ministère bu mais mais Cheikh sànq maa ngi lay laaj ci wàllu franc CFA <laughs> sant Diop la ñuy jooy ci Biram sant Diop <laughs> ak gàtt mais mais laalal ma ci franc CFA sant Diop ak gàtt daal la ñuy jooy moom waaye xam-xam moom <laughs> ci Biram Souleye la tàmbalee ci Biram Souleye la dëpp boo gisee Ousmane Sonko moom digga lu ma ko bëgg la wax tuuti waaw non bi dinaa ci ñëw mais li may wax li ma doon wax nii daf ma non daf laa ñor man gis naa ne daf laa ñor daf ma intéressé trop tey da nga ñëw pour wax ma loolu man comprendre naa non non comprendre naa mais mais mais franc CFA bi dafa jur coow Cheikh Bara ñun dañoo war a jóge ci franc CFA wut suñu ne bopp wala dañ cee war a des non franc CFA loolu dafa nekk loo xam ne lu lu technique la man ba ma bëggoon <laughs> ñu gën a ñëwaat tey ci parce que émission bi temps bi mi ngi war a jeex parce que xoolal li ma bàyyi ci kër ga ci ay gan yàlla xam na ne xoolal da ngaa jël émission bi moom dama bëggoon a ñëw ci euh, <laughs> ci ministère yi rek ministère yi sama bi nga xam ne mosul am ci Sénégal maanaam gouvernement boo xam ne ñi ko ëmb ñi ko ëmb ñëpp ay docteur professeur ñoo ko seq amu ci kenn koo xam ne domaine bi nga yor maanaam benn pratiqué woo ko novice nga ci quoi maanaam pratiqué nga ko mhm. wala nga bind ci dégg nga te diplôme boobu nga yor mu leer nañ ñu dënkaat la ko. waaw on peut citer ba pare Olivier Boucar ba pare ba pare ñi nekk ci kaw ba pare ñi nekk ci kaw ñi nekk ci kaw. ñooy résultat bi muy Ousmane sonk ak Diomaye. est-ce que xam nga ne Ablaye Wade mil bi muy jël réew mi da doon defar Sénégal. Mhm. mais mais da ngay jàpp ne Diomaye mu amut sonk la woon. Diomaye mu amul woon la woon waaw Diomaye mu àndut ak sonk la woon. Mhm, dafa ci war yi moo bari woon. Mhm. d'accord boo gisee Karim Wade mi benn paa nee ma Karim du ñëw man ne ko lu tax ma ne ma Sénégalais yi dañ koo war a war a war a mi hmm? te mujj na wax dëgg de sama benn paa journaliste loolu lay wax ne hmm. Karim bu procès bi day ñëw nit ñëw di ko sarse fekk kii day mel ne euh, loolu Karim dootu ñëw ndax yaa ñemeetul réew mi mais Abdoulaye Wade war yee bari moo tax ma mujj soppi ko di dox ni waa réew mi doxee mais hmm. jàpp naa ne li ma doon wax rek mooy elec euh, suñ suñ gouvernement bi bu njëkk ba dangay mën a ñëw nax wàdd wala nga nax Macky am li nga bëgg wala nga ger Macky am li nga bëgg léegi nag dangay nax Sonko nax Jomaay doog a am li nga bëgg mm-hmm. saa boo mënta nax Sonko boole Sonko ak Jomaay nax maam mënoo mënoo nax mënoo mënoo am li nga bëgg saa boo mënta boole Sonko ak Jomaay wor ah mënoo am li nga bëgg mm-hmm. donc kon gouvernement bi gouvernement la boo xam ne euh, ñu bari nag ñu ngi wax sax naan tamit Sonko dina mën a toog dix ans du jóg fi mu toog xam nga yooyu yëpp nit ñi dañ koy. waaw ah, dañ ko ah waaw Sénégal <laughs> Abdou Diouf ñaata at la nekk premier ministre Senghor. Mhm. fukki at. yoo xam ne sensé wuñ ko. dix ans Senghor Abdou Diouf nekk na ko premier ministre Senghor. Mhm. effectivement soixante deux yi bi mu jàllee Senghor dafa sensé constitution bi après gouvernement bi mu tegoon amul ministre premier ministre. bi mu demee ba effectivement quatre vingt huit yi ñëw mu tiit. gis na moom du mënta ñàkk ku koy ku koy gën a jegeel mbooloo mi ci la créé waat poste premier ministre jox ko Abdou Diouf dix ans ba quatre vingt ba ba mille neuf cent quatre vingt bi muy dem Abdou Diouf a nekk premier ministre am Abdou Diouf nekk na fi vingt ans xam nga ñaata premier ministre la am. ñaar mhm. Mamadou Lamine Loum ak Habib Thiam. Mhm. jeex na ministre roof rocc roof rocc roof moom waa ak Macky ko fi indi te dañ doon wër ku compétent rek parce que xam nga ne yow ku ñëw. war a former gouvernement ne sa premier ministre euh, Moustapha Niass la mhm. tëb nga waaye des nga des na da ngaa tëb des ci dal ci xal waaye da nga tëbaat ndax niveau bi des na bu dee maam maajoor booy maam maajoor booy ñi nit ñi dafa am ñu wax ne li may wax nag waxi nit ñi bi muy def magistrat ki jiite woon euh, euh, ki jiite woon faculté de droit mooy Kader Boye mi mu bokkal ndey ak mhm. di magam donc diplôme am boobu dafa bëri ñu koy xebet kon man ngaa jàpp ne xaw ma mhm. nga jóge ci sa Seck bac la am nga jóge ci Macky la ingénieur la mais amul culture générale comme rebo loo ko waxut xamu ko dégg nga tëbati nag xoolal li gën a dee dem dal ci sil nee na Njaay Souleymane Ndeye waaw nga xam ne niveau bi moom wax dëgg yàlla macha allah xam nga ne Souleymane moom wax dëgg yàlla ah maanaam léegi xoolal juróom-ñaari ministre premier ministre wàdd yi xool bu dee Macky Sall da wax ne euh, Abdou Mbaye mm-hmm. li ma la siy wax sànq mm-hmm. taxu ko woon a jóg sax mm-hmm. bi mu paree ci Abdou mbay mu def Mimi Touré. Mimi Touré ak Macky Sall li leen tax di xuloo dama la koy wax tey. ma jël date de naissance su Mimi. ara euh, maanaam chiffre boo def nga def plus chiffre boo def nga def plus bul def zéro nag. ñëwal 22 la lay jox. nga jël date de naissance su Macky Sall chiffre boo def def sero def def plus maanaam da ngay def quinze noonu nu mu judd sax la la 12 da ngay def 1 plus 2. 1 plus damaa teewloo tudd date de naissance am bi le onze douzième mois dangay def un def plus un def plus un plus deux mille neuf cent bi nga def un plus neuf plus six plus comme noonu. boo paree nga jël date de naissance su Mimi Touré. ñoom ñaar ñëpp chiffre vingt deux lañ. dañoo tolloo même chiffre moo tax mënuñoo ànd dañuy xuloo rek ànd. waaye Mimi sa Mimi ah. Touré bu contrôle Macky Sall ci baatin daaneel ko du yomb. Hmm. waaw dafa génn ci moom rek si rom dem. nga wax ay baatin baatin baatin nag saa yira ànd di li ci biir rek li ci biti ñoo ànd tey jii Ousmane Sonko ak joomaay xam nga lu tax maanaam seen mbir naqaree lijjanti lan moo tax boo bindee Ousmane Sonko Ousmane Sonko bind ko bind ba si yiiru Diomaye fay en français wala te Ar arabe arabe Bassirou Diomaye Faye nga adat ko Diomaye mi ngi lay jox trois mille quatre vingt 3099 siif la lay jox d'accord boo boo xadadee wa ma tasaauna ila an yasaa allahu rabbil alamin 3099 la lay jox mhm. waaw léegi la ñu ànd maanaam dajeeg laaya jooju ñooñu ñooñu ñooñu fu ñu yëggut da leen neex loolu mooy baatin bi Mimi Touré kon moo tax Mimi Touré moom moo Macky problème mu déggoo lañ am parce que dafa autoritaire mm. comme Macky Sall bëggut ku koy kii daal ko koy malmené te booy xool Macky Sall mboolem boroom xam-xam yi mu doon àndal ba ci El euh, Ibrahima Sall El Ibrahima Sall mel ni juriste. Mhm. dafa baax ñëpp ñu am xam-xam de ànd ak mag Sall dañoo mujj bàyyi ko. ñoom Eva Marie Coll Seck. Eva dafa mujj bàyyi. <laughs> moom kay seetal képp kuñ na la diplôme ba normal na. doon na ànd ak Macky daa xëy démissionné. dem si yàlla si Aline Badara. Aline Badara ak euh, ñépp Amarito Ñaanu Thierno Alassane Sàllo mhm. eh, Abdou Latif Coulibaly Ali Nguy Ndiaye Mame Boye Diao léegi nga xool bi mu ñëwee nag tag jàpp bun yoon bun moom loo ko mën a waxal xam-xam moom am na ko amu ci ndend niveau la yor bu mag bu kawe dégg ànd naa moom lu yàgg bi mu demee ba supprimer ministre bëgg a demal boppam effectivement mars la daloon Abdou Diouf dalaat ko Abdou Diouf dafa supprimer premier ministre 88 ñëw yar ko mu wuti waat premier ministre Macky Sall dafa supprimer premier ministre effectivement 2021 yar ko bi mu ñëwaatee bu dul woon ak feebar bu njoonee nekkaat premier ministre mhm. mu dem jël Amadou Ba jàpp naa ne am kayit dem mën nañ laa wax ne Amadou Ba am na xam-xam mais niveau bi moom bopp bi moom nit du la xam-xam génn na ca dégg kon da ngay gis ne ñoom diinaa ñu toog fi amuñu sensu li ma bëgg a wax foofu rey mooy Diomaye Faye dafa am sensu nekk président de la république am sensu Ousmane Sonko nekk premier ministre am loolu ngaan di maami réussite la mooy Diomaye day identifier boppam ci Sonko déedéet Macky Sall ma dama ne la euh, Ablaye Wade Moustapha Niass la dajal mu nekk premier ministre am waaw Sall la dajal mu nekk premier ministre am xam nga ne niveau Macky Sall ak niveau Sonko bokkunu après Macky Sall Idriss Seck après Idriss Seck ay ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye. d'accord comprendre nga problème mu am na premier ministre rek bu déggoog li idées yi Wade yi xalaat. d'accord amul premier ministre bu ko mën a looloo nekkoon ay defoom jomaay nag idées yi muy xalaat gëm ko dafa am premier ministre bu ko ko mën a appliquer. dëgg naa looloo tax maanaam réussite cent pour cent dafay am. dégg naa dégg da ngay xool tey ku mel ne Mountaga tagaa euh, mu tuddati mun tagaa waaw bu Kolda nga xam ne moom mooy remplacer Mame Mbaye Niang mhm. man nag bëggoon naa woo gaañi ci ñu topp weex-weexi gars yi mooy la waaw parce que gars yi dañoo yoroon ministère yi def lu leen neex di sàcc mais moom wax na ne du nekk fayanto mais daal ah, xoolaat mbir yi man de man de te dégg naa sax opération lii ma lay wax lii ma lay wax lii ma wax nii dégg nga euh, kenn du ko dindi muy Mame Mbaye Niang ministre de tourisme ak ma jéeñ ma jéen euh, ma euh, njaay laay wax dégg Jéen Njaay ak Mandiaye Diop ma Jéen Njaay mooy chef de cabinet am Mandiaye Diop mooy daasam Jéen Njaay mi nekkoon ci pêche bi waaw waaw te mujj ministre euh, Jéen Njaay men tam dëkk Kër Massar xam naa ko ñoom ñaar ñëpp Kër Massar lañ jaxaay ak Mame Mbaye Niang maa ngeeg seeni document yaa seeni document dama ne la li ma lay wax nii lu wér la ay détournement xaalis